بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون
bu ñetteel bi nag mooy ar rida moom itam mu muñ ñoo jokkaloo mooy daraja bi gën a kawe ci muñ rida muy gërëm mooy dem ba naqarlootoo loo xam ne yàlla dogal na ko ci yow xam nga kii muñ moom day muñ waaye nag affaire bi metti na ci moom maanaam ki feebar bëggul feebar bi donte nag mi ngi koy muñ ki am rida nag daanaka moom dana comme yàlla feebar la tànn teg ma ko rek d'accord naa ci feebar bi sama xol sedd na guy ci feebar bi waaw comme yàlla feebar la ma tànnal moom la ma teg am naa ci rida kontaan naa ci kookoy rida bokkule ka nga xam ne muñ ne maa ngi muñ feebar bi du ma saalit du ma jibarlu du ma def lu yàlla tere waaye nag bu ma sañoon daal nag feebar bañ maa dal feebar bi daal moom mu bañoon maa dal moo ma gënal kii nag moom gannaaw comme dal na ma dagg la nag dana faju dana faju waaye su wérutit du tax mu amul naqar comme lii la ko yàlla tànnal teg ko lii day jàpp ne daal loolu gën ci moom loolu mooy rida moo tax mu doon loo xam ne lu jafe la mooy wut ngërëmul yàlla soo ko dee wut moom dootoo seet situation bu neex wala bu naqari waaye lu la ko mën a may rek wala borom bi muy malal muhaajiroon yi gàddaayoon lil fuqaraa il muhaajiriin allazina uxrijoo min diyaarihim xam nga loolu metti na de uxrijoo min diyaarihim génn la sab dëkk wa amwaarihim tàggale la ak seeni alal metti na ndax lan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ngërëmul yàlla la ñuy wut loolu dañ caa kontaan gannaaw lii buñ ko defee am ngërëmul yàlla rek génn gi ak ñàkk alal ji yépp neex na leen waaw ndax njëgga moo leen jaral wa yansuruuna allaha wa rasula ulaika humu sadiqun suñ boroom wax ci ñi nga xam ne dañuy jëf-jëf yu baax te duñ ca sàkku lu may am ngërëmam mu ne laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas wa man yafal dalika btigaa mardatillah fa sawfa nutiihi ajran azima gis nga wa man yafal dalika ibtigaa mardatillah nee na seen gise yi ngeen di gisee ak secret yi ngeen di secret kenn ku nekk naan sa morom soxla naa la kay ma gis la nee na ya ca am njariñ mooy koo xam ne bu ngeen wéetee ngeen di waxtaane nu ngeen war a génnee ab sarax nu ngeen war a dimbalee diw ngeen di waxtaan nu ngeen war a tabaxee jàkka ja lépp loo xam ne lu jullit ñi soxla la daal loolu ngeen di secret nu ngeen ko war a defe wala boog la ngeen di secret mooy defare ab diggante aw islaahin bayna naas borom bi nee na bépp secret boo xam ne jëmul ci lii nañ bokk secret nu ñu dimbalee diw nu ñu defee lu baax wala diggante diw ak diw nun ko defaree nee na bépp gise bu génn lool rek amul njëriñ laa xayra laa xayra la wax njariñ amu ci waaye nag su ngeen koy defit nag sàkku ngërëmul yàlla mooy tax ibtigaa bardatillah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne zaaqa taamal iman man radiya billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin rasula rawahu muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mos na cafkol ngëm yàlla koo xam ne gërëm na yàlla nekk booram am na ñoo xam ne yàlla xam nañ ne yàllaay seen buur waaye neexu leen yàlla daal dañoo ëpp doole rek doon suñ buur waaw am ñoo xam ne amuñ ci ridaa boobu man a kontaan ci yàlla nekk gi mu nekk seen borom kontaan ci na ñoo xam ne fi mu ne même koor yi koor gi fi mu ne ñu ngi woor waaye d'accorduñ ci amuñ ci ridaa lool waaw amuñ ci ridaa maanaam ji def noo yàlla nu ëpp doole rek teg woor loolu rek kon nag nan woor ndax bu ñu wóorutin mën na noo def lu gën a metti koor gi waaye bokk gi xam def ci d'accord ne moom fi mu ne lii moo ko gënal lekk gaa naan gam doon def lépp koor gee ko ko gënal te xolam da cee sedd da cee féex waaw loolu xol bi da ciy féex amma ñu teg la dara nga def ko defe ko malgré nga ko defe malgré nga ko defe def nga ko daal waaye daal boo sañoon daal waaye nag nga defe koog boo xam ne nag da ngaa am féex lool kontaan ci lool loolu mooy ar rida noonu mu baaxee ci sa digganteeg sa borom nag noonu la nekkee aw ŋàññi ci mbirum adduna am na ñoo xam ne ci adduna lañ am rida dañ ne faax toog ne adduna nag laa doon seet egsi naa nag waaw moom la na inna alladina laa yarjuuna liqa ana wa radu radu bil xayaati dunia xam nga yow adduna fi mu la nga fay nekk rek waaye neexul dal waaw da nga fiy ne rek rafetal paas paas bi nga fi passé rek nga jàll waaye am na ñoo xam ne adduna da- dañ ne baax na nii moom waaw radu bil xayaati dunia dañ cee kontaan adduna kenn waru du- jullit waru fee nekk à l'aise noonu toog mel ne fii laa jëm si woon daal di jaaxaan mel ne jëmatuma fenn déedéet da ngay war a mel ne ku ku ku ne ci alerte li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon bi ñu ko gisee mu tëdd ci ab lal ba lal ba wow gu mu wow tax mu nataal ci faar yi faar yi sax lal bi da cee da cee marqué ñu ne ko waaw ah teñ laa wutal lu nooy looy tëdd mu ne maali wali dunia man lu may doy àdduna damaa mel ne rek ab gawar bu waroonu fasam di dem ba yàgg mu wàcc ci ker garab nopp lu fa tuuti war a waraat dem kooku lu mu fay wut ab lal bu nooy bu koy tax nelaw ba heure ba jot te du dem nee na àdduna loola dañ fay passé rek dañuy dem léegi dañuy dem de waaw escale la rek dañ fay escale waaye ñoo xam nag dañoo dañ dañ fay dëkk na ñoom dañ ne egsi nan nag waaw dañu egsi nan fii laa jëm si woon nag tukki bi fii la yem déedéet tukki bi yemul fii de dañuy jàll de alaxira fa lañ jëm moo tax borom bi nag araditum bil xayaati dunia min al axira fama mataawu alxayaati dunia fi l axirati illa xalil araditum bil xayaati dunia ndax da ngeen a gërëm dundub adduna bi mu féex ci yéen neex ci yéen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne man qaala raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahu ljanna nee na ku gërëm am satisfaction bu baax féex lool ci nekk gi yàlla nekk sa borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk sab yonent l'islaam nekk sa diine nee na loolu ku ci am rida am ci ngërëm nee na àjjana yey na ci yow omar bnu xataab radiallahu anhu bindoon na abi musa al asari ne ko inna alxayra kullahu fi rida fa in istataata an tarda wa illa fasbir abu musa al asari moom la omar bnu xataab bind ne ko xamal ne yiw wépp mi ngi ci rida mooy gërëm nangu mooy ak nangu nangu la yàlla def nga nangu ko d'accord ci nee na ko soo manee su mbir xewee na nga am rida soo ko mënul nga muñ waaw muñ beneen catégorie la bu nekk ci suufu rida mooy muñ nga rek neexul daal waaye muñ nga ko defoo lu ñaaw waxoo ko waaye nag boo sañoon daal bu teggi ko waaw te itam boo sañoon du la dal waaye nag ki nga xam ne moom dal gim ko dal moom da ciy kontaan jàpp ne comme yàlla moo ko bind moo ko ëpp yërmande ci boppam ba noppi teg ko lii mën naa am lii lam koy jural bu ko dalul woon du am loola su ko defee mu am rida bu baax loolu itam daraja la boo xam ne nit ki da cee war a jéem a yar boppam daraja bu kawe la nag moo tax ñu ne isaa taxaqaqa rida inda al abdi istawat indahu nicma wal baliya nit ki su demee ba am rida muy ngërëm gërëm dogali suñu borom tabaraka wa taala yi wóolu gum wóolu yàlla ci xam ne moom moo ko gën a fonk boppam yërmande ji yàlla am ci moom tolloo moo ëpp foofu ji mu am ci boppam gi way juróom am ci moom moo tax ñu ne boobaa xéewal ak nattu day yem ci moom benn bu ci nekk rek day jàpp ne aw sas la wu ko ca yàlla sas su amee xéewal mu sant su amee nattu itam mu muñ waaye du ca ñànki ci benn jàpp ne bii moo waroon a ñëw bii des fa déedéet ndax benn bu ne lam koy jural du xool jur jur bu teew bi maanaam xéewal gi lim lay jariñ léegi léegi nii du ko xool nattu bi itam métit bi doo ko xool léegi léegi mais la cay juddoo ëllëg ngay seet ndax bu boobaa yusaaxidu xusna ixtiyaarillah maanaam dafa bàyyee yàlla ixtiyaar bi léegi ixtiyaarullah maanaam lu yàlla tànn rek baax na yàllaay tànn léegi xam nga yow nag su fekkee yaay choisir nag naan bon bu ma bu ma amoon nangam daal moom da ngay bàyyee yàlla ixtiyaar bi comme yàlla tey lim la ixtiyaaral mooy feebar d'accord al ci feebar bi te yàlla ndax mën naa am feebar boobu soo ko feebarul am na foo xam ne soo wéeroon ba dem fa rek bootul musiba dal la fa mu feebar téye la téye la ngir nga bañ a dem foofu kon bari na loola dal loo xam ne am na lum lay fanqal loo xam ne soo ko xamoon da ngay sant bu baax kon mu lool mooy xusnu ixtiyaarillah maanaa nga tànn rafetuk tànn suñu borom tabaraka wa taala sawbaan radiallahu anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man yataqabbalu lii bi waaxida wa ataqabbalu lahu bil janna ana ku may nangul menn mbir rek ma nangul la aljanna ñaa wax ne la daga dem aljanna nee ma ne ko man mu ne ma laa tas alinnaasa shay'an sart bi daal mooy bul laal nit ñi dara sawbaan moom pour appliquer loolu demoon na su waree ciw fasam yar bi mu yor rëcc ko wadd du ne kenn jot li ma ko day wàcc fas wi jëlaat ko yéegaat waaw mën a joxuma ne nit joxuma moom da ko bàyyi définitivement moom waaw jot li ma sax du ko wax nit waaw xam nga war ci sa kaw fas sab yar rëcc la wadd ci suuf nit ñaa ngi dox doolu eh yow jot li ma yar boobu mais day wàcc jëlub yaram ne dama kóllëranteeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaddu gi mu waxoon ne ku ko ko warlul mu warlul la aljanna te mooy laa tas alinnaasa say an bul lal nit ñi dara bokk na ci maanaay rida nag nit ki doyloo situation bi ko yàlla jox xam nga ar rida boo ko amoon rek bari bari na nit ñi li leen di sonal mooy jéem a làq situation boo xam ne tollootoo ca amoon ba yàgg ñàkk commencé ñëw nga koy jéem a calmer di ko jéem a masquer di lebak lu ne nga dugg ca pour garder situation bi nga amoon nit ñi gisee la ko ñu ne moom borom alal la nga fii moom soo soo bala bu amee ndax suñ demee ba de limaale ci borom alal yi rek dugg nga waaw ñu ne moom borom alal la alal it booy dem bay doon borom alal mooy yaa ko fa garder rek yaa ko denc alal matt la rek matt mi li balaa tuddub lobb naa ñu waa Dakar moom du ñu xamub lobb moo demee soo ci kaw gi ab lobb dañuy lobb matt mi lobb nag bu yàggee jaan da cay dëkk alal ji itam te nag mooy matt ma ñëw teguñ ko ca taal ba lu mooy di ko denc rek di ko teg di ko teg di ko teg di ko teg mais su doon matt gu ñëw te taal bi moom defe naa ne néexu la am matt yu ko yu ko jeex taal bi mooy soxla si lislaam ku fi denc ay alal ci banque bi da ngaa lobb sa alal moom la borom bi nag yaknizuuna zahaba wal fidda wala yunfiquunaha fi sabilillah gis na fi sabilillah di da ko caa deful gis na ko gis na fi sabilillah da ko caa deful kooku nag fa bassirhum bi azabin alim jullit moom dana am al waaye nag di ko denc nag ba mu nekk alal joo xam ne kenn xamul nu mu toll di andi ay noonoo di andi ay xëccoo di andi ay riba mënoon naa bañ a rek taal bi taal bi mooy soxla si lislaam mi ngi tàkk mbatt goo ci teg rek mu takk nga gël geneen teg ci alal joo am rek defal ci taal bi taal bi tàkk rek bu taal bi fay waaye matt moo am denc di di wol taal bee ko upp ka te bañ cee teg sa matt mi da ci teg sa matt mi mu tàkk waaw waaye di for ay kayit ak lu ne di ci teg mooy yalwaan mi nañ yalwaan nañ yalwaan pour pour pour taalub l'islam bi tàkk déedéet yalwaan du ko taal de débloqué compte yi ci banque yi moo koy taal waaw mu loolu mooy tax soxla yi l'islam yi faju jàkka yi taxaw daaray alquran yi taxaw ñu am ay hôpitaux yoo xam ne yooyu l'islam la am sax ay université yoo xam ne yooyu l'islam la jullit ñi séeréel seen bopp seen lépp ba ñu déglu ay état ak dara xam nga jullit ñi mën nañu am état ci biir état am na yoo xam ne état bi terewu ko yëpp école privée yeeg hôpitaux privés yeeg yooyu yëpp état bi terewu ko lu tee jullit ñi defal ko seen bopp mën nañoo dem ba yem yor moom kenn duutu ko soxla bu ubbi ay école gaa yi ne ko dañoo am suñu école privée islamique koñ bu mu tabax école am rek gaa yi ne ko école bi da bay boo seeti ko foo loo ci def waa koñ bi kenn soxlawu ko fi tabax na suñu bopp suñu école mi ngi fi mu tabax université am gaa yi tabax seen université ne ko soxlawuñu sa université mu def ay hôpitaux ñu defal seen hôpitaux ah day mujj dem ba kenn du ko soxlaal dara te loolu loolu lu mën a nekk la lu mënoon a nekk la kon nag loolu ña koy def nag mooy ñi wut ngërëmul suñu boroom tabaraka wa taala Saad ibn Abi Waqaas dafa mës a ñëw Makka xam ngeen ne moom yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo ñaanaloon mu am ñaan ko nangu nit ñi dañ ko daan topp pour ñaanal ma moom yàlla da ko mayoon ijaabatu daawa waaye bi muy ñëw Makka nag jamono boobu nag dem na bay bëtam muuru nag mu silmax nit ñi biñ déggee ne ñëw na Makka rek ñëpp raj raj loo wër ko di sàkku ci moom mu ñaanal leen benn waay ne ko waaw yow lu tee nga ñaan sa bët yi wér gannaaw yow yàlla may na la boo ñaanee daf koy nangu sax ñaan ñépp a ci am yaakaar tee nga ñaan sa bët yi wér falaw daawta li nafsik faradallahu alayka basarak mu daal di muuñ ne ko yaa bunay qadaahu llahu subhanahu indi qadaau llahi subhanahu in- indi ahsanu min basari ne ko dogalub yàlla ci man moo ma gënal sama gis bi waaw dogalub yàlla ci man bi nga xam ne moom loola tànn def ma ko nii sama bët yi muuru moo ma moo ma gën a kontaan loo gis bi maanaam di yëg ne yàlla teg na mam natt boo xam ne loolu la bëgg ci man ma muñ ko moo ma gënal yori bët di gis gis nga loolu mooy arrida arrida arrida nag mooy gërëm li yàlla def dàqonte wut ak nag ngay sabablu di def lépp loo xam ne luy gën a baaxal sa dund la luy gën a améliorer sa situation la maanaam bu ñu dégg ridaa rek nga daal ne ma kon man ni ma nekkee fàqir nii rek d'accord naa ci toog naa du ma jéem dara waaw déedéet déedéet man daa am faqir ga wala ñàkk ga sabab yi la yàlla defal da nga utiliser wul yépp waaw bari na war a ko doon faqir koo xam ne jumtukaay yi ko yàlla jox daf koo utiliser wul kon boobaa faqir ga yàlla tegu ko ko du natt bu ko yàlla teg moo sàgg moo deful li mu war a def ndax yàlla dafa ne laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha ku ne am na lu mu la jox nee na teguma la lu may li ma la jox mais li mu la jox da nga koy utiliser utiliser sa sa sa xam-xam utiliser sa doole utiliser sa cawarte utiliser sa say relation yooyu yëpp nga utiliser ko pour wut lu lew waaw soo defee yooyu yëpp ne fa nga mën a yem nag loola nag bu boobaa nag foofa la yàlla yemale sa mbir waaye bari na yoo xam ne kan nag yaa deful effort mais boo defoon effort weesu fi nga toll yu bari soo defoon effort weesu fi nga toll wala ngay weesale sa bopp yenn yi man nangam du ma ko def du ma ngàbbi si leen maa di jaay du ma saam ca marché ba bisaab di jaay du ma def nag déedéet yooyu yëpp mën nga ko def yooyu yëpp aw yoon la wuy jar di dem rek waaye soo teelee teel tëj bunt yooyu yëpp nga tëj ko rek daal de man kon faqir laa jox leen ma ci asaka yi ah déedéet da ngay da ngay def yi nga war a def soo defee yi nga war a def yëpp nag ba toppi nag lii nga mën a am nag nga xam ne nag kon foofu la yàlla yemale sa mbir bokk na ci meññeet yi nga xam ne nag ridaa dana ko jural nit ki daf koy ubbil buntum noflaay maanaam ki am ridaa gërëm li yàlla dogal day noppalu fii ci àdduna balaa alaxira ñëw day am itam xol boo xam ne bu ne rëmm la bu dal la bu nit ñiy tiite ka jaaxle moom day xelam day dal ndax jàpp ne lii la ko yàlla tànnal lii la ko yàlla tànnal teg ko lii su ko defee dafay am tuma nii na dafay am xel boo xam ne bu dal la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha yabtali abdahu bima ata fa man radiya bima xasama allahu lahu baraka allahu lahu fihi wa wassaa wa man lam yarda lam yubarik lah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu boroom day nattu jaam bi ci lim ko jox mu ne ku gërëm li la yàlla sédd nga bañ koo xeeb bañ di ñànki bañ di xool ñeneen ñi li ñu am ndax dañoo wax ne àdduna moo fi am ak diine bu dee ci diine xoolal ñi la fare kaw bu dee ci àdduna xoolal ñi la fare suuf waaw ñaar yu téen ak sëgg rek moo fi ne téen ak sëgg bu dee ci diine téenal xool gaa yi gaa yi jànkati alquran yi naafilakat yi joxekat yi nga ah man de ñii laa bëgg a dab bu dee ci àdduna rek sëggal xool ne ah gaa yi day di ñii di raam ñii di darngu ñii di yalwaan ñii de maa leen tane waaw waaye nit ñi nag contraire bi la ñuy def waaw diine la ñuy sëgg de ah gaa yi de maa leen tane nag waaw diine ji moom dañuy sëgg lu ma sàggan sàggan daal waa ji moom maa ko tane alal nag ñu téen ni lee xoolal gaa yi rek man yoru ba dara milliard lañ yor boo téenee xool borom milliards yi danga daan man yoru ba dara sëgg nag ci diine ji rek ne gaa yi la ma maa leen tane boo demee léegi day gis ñuy añ ci restaurant yi nga ne ah li ma bon bon bon nag maa tane ji moom moom moom du ma du ma waaw mais bu dee diine da ngay xool ci kaw àdduna nga xool ci suuf loolu soo ko defee rek da ngay daal di dem sëgg ak téen rek a fi nekk diine téenal àdduna sëggal su ko defee mu daal di jag moo tax mu ne ku gërëm li ko yàlla jox yàlla barkeelal ko ko ndax bare gi moom barkeel moo ko gën te barke gi mooy mu dem fa mu war a dem rek nit dana amub téeméer rek la ci yoo xam ne yow boroom junni bi rek la gënal fu sama junni ba jaar sama junni ba daal xaw ma fu mu jaar rek xaw ma lu ma ci def yàlla bu daal réer fekk na da koo dépassé ci lu amul benn njariñ gisoo dara lu mu la fi bàyyil kii am téeméer bi seere ko seere boo xam ne am ci lu am njariñ loo xam ne du ko fàtte téeméer ba sax mën naa continuer di dem di jur ba juri million sax far mooy barke kon li ñu naan bareele barkelle moo ko gën alxasan daf daan wax ne irdi anillah yardallahu ank gërëmal yàlla yàlla gërëm la waaw yàlla nag day bëgg nga gërëm ko moom it gërëm radiyallahu anhu wa radu anhu radu anhu da ngay gërëm lim la defal mu gërëm la wa atil laaha alxaq min nafsik mu ne joxal yàlla aq ci sa bopp jàppal ne yàlla dafa am aq ci sa bopp mu ne xanaa déggoo waxi borom bi ne radiyallahu anhum wa radu anhu kon nag mbokk yi loolu mooy ar rida moom itam na ci nit ki jéem a tàggat xolam mooy su la situation boo toll nga gërëm booba ndax jàpp ne li la ciy dimbali nag mooy nga jàpp ne mbir yii yemukaay bi nekkul fii boo amee alal ah santal yàlla xéewal la gu la yàlla defal waaye soo ñàkkee itam bu rusa génn bul jàpp ne da ngaa amatul personnalité dootoo ñemee feeñ ci mbooloo mi am na ñoo xam ne sax duutuñ jullit ci ca jàkka ja dañuy rus nit ñi gis leen léegi ndax da dañoo ñàkk te de gërëmal la foofu la yàlla tollale ndax xaraa kon da ngaa jàpp ne ba ngay amee alal ji yow ca kaw nga ne yaa gën nit ñi ba jàpp ne bi nga ñàkkee da ngaa suufe mbir yi nekkul foofu borom bi ne ayaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banin nusaariu lahum fi lxayra bal laa yasuruun da ngeen a jàpp ne li ma leen di jox ci alal wala ma jox leen ko ci njaboot ci ngeen rawee ñeneen ñi ah déedéet borom bi nee na raw nekkul foofu de ki jàpp ne foofu la raw nekk nag su amee alal jàpp ne personnalité la boo xam ne sawar a dem ci xew yi nag ndax oto ba muy gaare col ga muy col xew wu yor ak wu ñurul wu ne dana ja dem ngir ngir wane oto mag wane ak colam ak ah diw ñëw na diw ñëw na bis bu ñàkkee nag xew ya doon farata sax ah bu bay boo bay bu ngeen dem rek ba doon ba am gàtt du bëgg a feeñati fenn kooku kon li muy tekki mooy daa jàppoon ne ba mu amee lee keneen la koo xam ne bokkul ak bi mu ñàkkee keneen la déedéet fekk na yooyu yoo dendaloon dong la du la yokk du la wàññi la nga ciy jëf rek moo la yokk wala mu wàññi kon situation bu la yàlla toll la rek d'accordal booba soo amee del def soo ñàkkee itam donte da ngay dem daan joxe asaka ba yàgg ngay laajaat asaka sax di lekk gërëmal ne loolu la yàlla dogal ci yow nit ñi li leen di sonal mooy jéem a calmer situation bu soppiku yàlla nag day soppi situation yi surtout jamono ji situation yu bari daa soppiku gaa yu bari lañ leen doon foogeeg la nekk léegi amatul ñu koy jéem a calmer nag waaw xam nga tiimum pax mooy bañ mu feeñ ngay dërale rek pax mi gën di yaatu ngay dërale rek muy yaatu ngay dërale rek ah day day mujj nag dootoo dootoo mën a topp da ngay topp rek gaa yi fii pax la topp ñëw leen sulle ba ko waaw da ngay topp ne waaye yàgg say mbubb say grand mbubb di suul nëbb pax mi fekk yaa ngi ki problème yu dul jeex ay boru yu dul jeex yi ngay dërale da yàng rek di wane situation bu baax ci bitti déedéet da ngay mujj rek ci biir pax mi ngay daanu far waaw boo dëralee ba mënatoo dërale ci biir ngay daanu soo toppoon nag nangu ne paxa fi ne mën nañ la koo sulle mu jeex waaw mooy situation boo toll bu ko nëbb bu ko nëbb sa mbokki jullit boo amee bul nëbb am nga buñ laajee joxeel ne man damaa am waaw damaa am gars yi ne ko am junni nga ne man million lay joxe damaa am xaalis million lay joxe da koy daggu bis boo ñàkkee itam ne gars yi ne junni la ñuy joxe nga ne man téeméer lay joxe damaa amatul xaalis waaw yépp a yem yépp nga gërëm ne gërëm ne yàllaa ko jox waaw bul jéem a calmer